dal di dal di sëgg <laughs> Diop. maam Bamba. Diop yow ko xam làmb nga yow si nga naan àndala ah, wala boog. lay bu baax a baax baa ngi am tawfeex. waaye sant bu baax mais gëj nag naka waaye sant bu wér a wér mais xam nga rek nekk ci ay tës tësi rek. waaw mais noonu la yàlla baax na loolu mooy wóor sax. oui di si di ziar sénégalais yëpp. ak jaajëf Diop. nekk Sénégal ñëpp. jaajëf jaajëf. Eh, di leen ziar bu baax a baax di wax ne gars yi dugg naan diw mooy daan. Hmm. nañ gëm yàlla te xam ne yàlla dafa am ñoom xamuñu seen suba xamuñu seen tay xamuñu seen ginnaaw suba. Hmm. ñaanlu ñëpp ñun senegal yàlla daf ñoo bind mu Sénégal ak tubaab yeek ñëpp ay ñaanlu ñëpp ay ñaanlu man damay seetaan fii télé tubaab tubaab yeeg ñëpp ay seet. Hmm. mais nañ bàyyi di jéem a taxaw ci palaasu yàlla. ñu xam ne yàlla lépp lu mënti am ci àdduna yàlla mooy dogal ba pare doomu aadama door cee xam dara mais bu yàlla dogalul kenn du ci xam dara. Mhm. waaw di wax ne sénégalais yi instant yi ñun nañ ñun surtout jeunesse bi man cadre làmb dunduma ko dundatuma ko sax daan naa ko dund mais dundatuma ko. Mhm. parce que tey jii ñun jeunesse bi ñun ñun ñun jeunes yi ci boppam dañoo war di am lu ñun naqari chaque jour mooy. suñuy rak suñuy jarbaat suñuy mag suñuy doom ñëpp a ngi dee ci àll bi instant yi nii. Mhm. te amul kenn ku koy naqarlu man gëj naa dugg nag ci média ci ci débat média yi gëj naa ci dugg trop mais nag maa ngi suivre actualité Sénégal bu baax mais wax dëgg fa yàlla jamono ji ñun war nañ mën a tal leneen lu dul yenn détails yi nii nii. li may wax li may doon wax bu njëkk laay waxaat tey mbër yi dañuy nekk ci koñ naan la jàppale dañoo bëgg a nekk champion jàppale ñu jàppale ñu yéen waa koñ bi di leen dimbali di leen jàppale ñu leen di jox ay ceeb yi fa ceeb yi des yeeg cere yi des yeeg lépp ñu leen koy jox te bu ñu amee lii njëkk a def mooy dem yóbbu seen baay màkk yóbbu seen yaay màkk loolu lay njëkk a def mbër yëpp tout man amul lu ma mbë lu ma lu ma lu ma dundul ci mbër amul lu ma dundul ci làmb du ma wax nag man may kii wala man maay kee mais di wax ni ñi nañ xippi xool seen bët xam ne mbër yi ay warkat lañ ay trahir lañ kat lañ yu mag jaruñoo topp tey jaruñoo topp suba jaruñoo topp ginnaaw suba waaw te di ñaanal ñi nga xam ne ñoo des ci ndox bi yàlla na leen yàlla yërëm xare leen àjjana firdawsi mhm. parce que du ma ci balaame kenn parce que li bukki bi leen màttoon Sénégal ba tax ñuy jël yoonu gaal gi di di di di dugg ci Europe bi bukki boobu man moo ma mattoon man moo tax ma jël man mi jaar ci yoonu suuf jaar ci yoonu gaal ba yegg si Europe gii nii ba yàlla dimbali may dem ak ñëw fu ma neex may dem ak a ñëw xëy na nag coono boobu noonu man ma doon daj xëy na ñoom itam tey coono boobu noonu moom lañ moom lañ moom lañ moom moom moo ci lañ toll instant yi moo tax mënuñoo toog Sénégal. Mhm. du mu ci balaame kenn dañoo toll ci diggante rek. di wax ne nañ delluwaat suñu xel ci yàlla te delluwaat suñu xol ak suñu xalaat ci jëfinu doomu aadama yi nga xam ne ñu ngi koy teg sénégalais yi ak Sénégal. Mhm. instant yi nii lii lu ma dencoon sama xol la parce que maa ngi gis actualité yi lu bari aw boo gisee sax yow gëj ñoo déggante ma baam parce que ah. aw jot bu jot bi ma ah. amoon bu. essai sama jot dafa gën a dafa dafa gën occupé te yàlla damay ñaan yàlla mu gën a mm-hmm, keneen ak keneen. waaw. di jaajëfal ñëpp di masaw ñëpp di wax ne jeunesse bi nañ ibbi seen bët xool xam ne làmb du dara. football ko gën foofu instant max Liverpool max Chelsea Manchester City laay seetaan moom laay divertiro mais làmb du dara. làmb bu dul làmb ji ne barki Seexul Xadim dem naa ci Sénégal. Mm-hmm. am na mbër yoo xam ne tey jii nii man su ne su su ma dajee woon ak ñoom bu du ma bu ma waxee duñu wax parce que jëf la yàgg naa jëflante ñoom mm-hmm. mais damaa xam ne loolu dama ko lu ma réccu la sama àdduna mais ñaanuma yàlla sama doom sax ñaanuma yàlla muy seetaan làmb làmb ji passé rek sama jabar dama ne ko sama doom jox ko téléphone mu foo ci téléphone bi nekk ci leneen mais bu xool seetaan sax làmb amul ñu benn njëriñ di wax ne ñu bañ ñu bañ a guddal ñu gàttal xam nga bàyyi gars yi ñu yaatal. jaajëf di leen jaajëfal bu baax a baax a baax di masawu gars yëpp. jërëjëf merci ok maam Bamba jaajëf merci ça fait plaisir jërëjëf merci jërëjëf Diop Decca maa ngi koy gërëm baax di ko di ko ziar moom également euh, suñu wóolu rek bu a yàgg asalaamaaleykum. def kilifa gi. looy solo alhamdulilah. ñooy ziar noo tudd ak foo ñu woowee. delloo ziar bu baax a baax. noo tudd ak ñu Eh, maa ngi tudd Yankoba maa ngi woote Géejawaay. ah Yankoba borom Géejawaay. Mhm. naka Géejawaay. ça va alhamdulilah si jàmm. ah ok bien merci bisimilah da bëggoon soobu ci waxtaan bi. waaw waaw waaw damaa bëgg dugg ci waxtaan bi. waaw allez-y yow teewlu allez-y. Mhm. ayca que eh, maa ngi déglu sànq waa ji doon wax léegi léegi. Mhm. Eh, donte wax na ay kàddu yu am solo. mais na xam ni lamb ji tamit ñun suñu sport national la. ñun à làmb am ñu benn effort boo xam te ni ñun ñoo ko moome suñu bopp. làmb ñoo ko moom. foo mënta dem ci monde bi nag dañuy suivre làmb même bu dul moom sax donc lamb ji moom ñun dañ ko war a tiitaroo te suñu tiitarukaay la. donc dëkk bi metti na trop mais loolu du tax mbër yi li ñu war a am ak ñi ñu war a bégal duñ ko def. Mhm. mais mbër bi boo koy jox ay ay desetu ceeb ak desetu lan moom liggéeyam lay def yow mi ko jox joxoo ko pour xaar ci dara dañ koo jox pour ngir yàlla ak yonentam mais joxoo ko pour xaar ci dara bu la joxee dara tamit loolu xa kiyam la rek yéeneem la. Mhm. te man mbër yi ma xam man mbër yi ma xam ñi ma xam géejawaay fii nii ñoom seen koñ même bu dee du ñëpp lañ ñuy may xaalis ou bien ñëpp la ñuy may teranga mais ñu ngi koy joxe ñu ngi koy joxe si ñoo xamante ni ñoo ko yelloo parce que nit ki tamit ku mel ni man mënumaa nekk ci benn koñ ma am chaque jour may génn ku nekk suma ma dajak yow ma jox la dara loolu sax boo ko xoolee bu baax gudd fan bi ci topp. Mhm. waa parce que cat ak leneen ak leneen mun na faa ñu kon bak euh, di remercier ñëpp. Mhm. di wax di waxu waa ji ni tamit làmb ji ñun ñoo ko moom làmb ji moom mënuñu koo bañ. ok làmb moom foo mënut a dem. ci àdduna bi moom kon daal na gaa yi way di bëri rek quoi. voilà. <laughs> ni ku nekk def loo war a def. Ah, ah. voilà. jërëjëf merci beaucoup ok jërëjëf merci. kenn ku nekk am na ci xalaat kenn ku nekk it am na ci gis euh, maa ngi lay nuyu. waaw Bamba. ça va na nga def. mu ngi lay ziar. maa ngi activité yi. sant yàlla bu baax. naka dimanche bi. waaw ah, dimanche baa ngi nii rek ñu ngi seetaan suñu match Chelsea ak teg suñu caayam. kon seetaanoo lamb ji quoi ay sa ay Chelsea affaire yooyu. làmb ji xam naa ne am na de waaye wax dëgg yàlla xamaguma sax ñaari mbër yi ñu ñu ñuy nu mu génnee seen kër xamaguma ah waaw lamb ji moom daa ma ne amul. fa la match Chelsea bi toll moom. 3 3 3 2 pour Chelsea City. ah 3 2 ah, ok ah c'est bien. waaw déglu naa sa sa sa sa waa ji génn léegi nii. waaw mais naka nga gisee débat bi yow naan làmb am na solo ñi naan dañ ko war a mettre focus sur l'essentiel ak cest dire le débat yi la naka nga ko jàngatee yow de façon globale. waaw man ni ma ko jàngatee c'est simple ñun suñu réew dafa toll ci tournoi ba nga xamante ne tournoi décisif la. parce que comprendre nga. dañoo toll ci maanaam ñun waxuñu ne làmb gi suñu sport national suñu sport nationale la. Mhm. mais dañoo toll réew mi fa nga xamante ni ci tournoi bu garaaw lañu ñu ne. ñu war koo lijjanti ñun jeunes yi est-ce que comprendre nga. Mhm. te suñ ko waree lijjanti lan luñ fi nekk di tal ay làmb duñ fi tal ay làmb ama làmb lan moo tax.